ànd ko itam xaritam di soppeem di genn wàllam di xalifa Babacar Ndiaye moom itam di kenn ci kër gi di kenn ci njaboot gi Babacar asalaamaaleykum ñu ngi lay dalal jàmm. waaleykum salaam euh, Joobe ñu ngi lay ziar di la balu xaq di la baal yàlla ñaar bu ba jéggal di ànd ko ak sunu ki xam mooy sunu sëriñ di sunu soppe Oustaz Abdoulaye Gaye ñëpp xam ko ci Thiès xam ko ci tafsirul Quran euh, ñëw fi nag ci daara ji nga xam ne mooy Thiès mooy Thiès Prestige. mu nekk télévision boo xam ci ne ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel ko ak mboolem koo xam ne yaa ngi liggéey ci barkeel ci yàlla Muhammad salaamaaleykum. waaleykum salaam jërëjëf Oustaz Babacar eh, kii nag ñu fas yéene waxtaanal ci thème bu am solo fii nga xam ne mooy seen émission Prestige éducation di kenn ci ñun di suñu xarit eh, di béy waaram te 2STV muy Oustaz Abdoulaye Gueye Oustaz salaamaaleykum bisimilah. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي jawe ñu لي leen nuyu di la ziare bu baax nuyu waa kër gi nga xamante ni fi lañ gane برستيج tey muy di def liggéey bu am solo boo xamante ni ñëpp a ngi koy rafetlu yal na yàlla gën koy yaatal yal na yàlla gën ko dooleel macha allah yow ñu seq lépp ngay suñu waay di suñu xarit macha allah ñu ngi may wax Oustaz Abdoulahi Guèye waaye Thiès ñu ngi ma miine ci Baye Laye Guèye kon maa ngi nuyoo di ziare. jërëjëf Oustaz euh, Abdoulahi euh, tey nag ñu invité ci benn plateau bu ñuy wax Précise Éducation. Mm-hmm. bi nga xam ne mooy wax yar yaru. yeete ak njàng mm-hmm. oustaz nga yor daara te mm-hmm. eh, di jàngale gannaaw ba nga jaare ci daara oustaz ñu bëggoon nga xamal ñu lan mooy yaru daara waaw yar en général buñ ci bëggoon a ñëw rek mooy loo xamante ni mënu la ñàkk ci dundu doomu aadama mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu dafa wax ci benn xadis nii waajur defalul doomam cadeau bu gën une bonne éducation loolu waxu yonent bi te waxu yonent bi ni ko suñu maam ju baax ja maam Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke daan waxee rek naan wax moom soo bëggee mu am njariñ bu ci leble te bu ci fay bor yonent bi waxam du ci leble du ci fay bor moo tax yàlla garantir wax ni laa yamtiqu anil hawa du waxi bànneexu bakkan yàlla moomu nag lu jiitu moom muy wax yàlla daf ko wax moom sallallahu alayhi wa sallam ni ko waxal gaay yi ni leen qu anfusakum wa ahlikum wa naaran an-nas wal hijar fegal leen seen bopp ak seen njabot safara si nga xamante ne li koy xam mooy nit ak i xeer yonent bi nii loolu nag kenn mënu ko fegal sa njaboot lu dul defal loolu leen yar bu baax mu mm-hmm. tax mu wax moom ci xadiisam ba ni nit defalul doomam kado bu gën yar bu baax mm-hmm. kon lislaam daal li mu xam mooy yar bu baax yar boo xamante ni boo ko defee ci nit ki bu la gisee yaru bu la gisul yaru loolu mooy yar bu baax dëgg la Oustaz Abdourahmane loolu mooy yaru baax waaye Oustaz nga yor daara mm-hmm. bu ñu nee daara nag li ci ëpp dañuy naan jàngale mm-hmm. waaye bëri na daara yoo xam ne dañuy jàngale mm-hmm. waaye du ñuy yar bëri daara yoo xam ne dañuy yar waaye du ñuy jàngale Oustaz est-ce que daara dafa war a jàngale dong wala dafa war a yar dong wala dafa war a boole ñaari nga wax ñu sa daara eh, lan moo ko tax a jóg sa jawe laaj nga jawe nga laaj bu am solo ci wàllu éducation xam nga yar su àndul ak njàng du baax tubaab sax da koy wax ni science sans conscience n'est que ruine de la nit su fekkente ni jàngal nañu ko te yaruñu ko kooku du baax cim réew hmm. looloo tax li ñuy naqari yenn saa yi ci réew mi ñu koy gis hmm. ay étudiants yu taxaw wala ay élèves yu taxaw mer seen xol jeex ci ay revendications yu bëgg na amuñu ko ñu fekk ay kaar di toj kaar yooyu nga xam ne ñun doole yi bu ñu paree si la ñuy war a duggaat ñun ñi nga xamante ni amuñu yenn moyens yi ñuy war a doxe suñu soxla ñu toj ko yàq lu bari loo xamante ni lépp ñoo ko moom mooy def nañ ci ñoom science bi amul conscience kooku mënul am njëriñ l'islam nag mënul reconnaître loolu ci diine moo tax toujours day boole yar ak jàng mooy damay wax nag ni jàngale moom ku ñu jàngal nga mën a jàng waaye yar ki lay yar faaw mu yar hmm. arab day wax ni faaqidu shay'in la yu'tihi nit ki mënul la jox lu mu amee gis nga boo jëlee acier mm. ak weñ mm. boo leen dendalee jarul nga naan acier bi takkal ci weñ gi jarul nga naan weñ gi takkal ci acier boo leen dendalee ñu takk parce que dañ ñoo dañoo noonu la war a mën a demee mais boo jëloon ab bois fee muy matt wala lu mu mën a doon teg ko fii ak benn fer du takk mm. parce que ànduñu kon kii yare faaw mu yaru soo yaruwul nag doo mën a yare dëgg la waaw loolu laa gis boo yaruwul doo mën a yare oustaz euh, daara ji ngay defal jikko mu mel ni kon ku jaar di daara am na jikko yoo xam ni dañ ko war a seetandal ci yow noo gisee yow yaru daara. ah fa tabarakallahu jawe eh, yaru daara bi ma ko gisee ci Sénégal fi mu tollu tembe nii dafa laajaat ñi dafa jikko yi parce que sama sëriñ bu sëriñ Abdoulaye Sall Amin daf ko doon wax mu ne bu nit ñëwee ñu la maa la gën ngeen gàll ci kàddu gi dama maa la gën a réew nee na nga ko wax ni ko maa la gën a yaw ñeen mm-hmm. su la waxee mu ne maa la gën maa la gën a dof nee ko maa la gën a dal maa la gën a nite te loolu lépp dafay jóge ci daara mm-hmm. ndax euh, daara dafa nekk loo xamante ne nii dafa jar ñu xoolaat mbir yi gis nga du li mu toog moo tax ma Oustaz Abdoulaye Gaye yoon na daal mais soo ko xoolee dafa naan man de li may internet du mënta passé trente xale parce que fi euh, environ bi ma nekk ma fee mën a yar lu ma téeméeri xale du ñu yàqu kon naa bàyyi ba tabax loo xamante ne wóor na ma ne bu mën fa dugalee moo waral mu dem grand standing euh, tabax fa loo xamante ni nii R plus 3 la incha allah dinañu ko gis publicité bu mag xam naa nañu ma baaxal euh, euh, pour yar xale rek moo ko tax a jóg ndax nekk na koo xamante ni nii aussi yaru daara jawe daara da ngay yaru dangay am xam-xam da ngay jàng door a yaay dëgg la da a mhm. dafa mel ni condition yi baax na ci yar mhm. mu mel ni daara ñu gis léegi mhm. eh, dañuy yor xale yi bëri na liñ ci gis man damay faral di def sama sama stratégie boo xale buy yalwaan rombee mhm. di wut yalwaan dinaa téye li ma lay jox mhm. waaye dama lay naan taril ma benn saar mhm. bëri na ci xale yoo xam ne duñu tari dafa mel ni ustaas yi yor daal yi ñi ci ëpp dafa am lu ñu bàyyi maanaam yar bi ba dañ jël xale yi pour liggéey loo leen est-ce que njàng boobu ak ñàkk yar googu mën na am loo xam ne jeexital la ci xale bi bien sûr que ni war na mën a jeexital ci xale bi parce que mooy li ma la waxoon rek xam nga dafa am ñoo xam nii dañu gis ni yor daara jamono la ñu ànd ci ak ay nit ay complice mm-hmm. ni nañu yor daara ngir ame ci dara mm-hmm. moo tax nit ki nga xam ni yembul day jël doomam ñëw di ko jox nit naan ko kii ay yaxam laa la laaj mm-hmm. laaj ay yax ba pare joxe woo añ joxe woo reen joxe woo ndékki waaja bu dee gëm na li mu wax léegi ay yaxam fekk la sa kër yow nga koy nax parce que li nga laaj da nga ko dëggal da nga wax ba ñëpp dégg ne ay yaxam laa la laaj ba pare joxoo sëriñ bi ko jox mu añam mm-hmm. joxoo ko reeru xale bi joxoo ko ndékki xale bi joxoo ko dara kon boo ko laajee ay yaxam bu la déggalee ci noonu yax yi dina la gaaw fekk si fa nga jëm. waaw oustaz loolu est-ce que daara yi kon. Mm-hmm. Eh, ala taxul ngeen ubbi daara yi. mais am na ñoo xamante ni loolu la parce que business dafa am ci loo mën a dégg. Mm-hmm. am na ñoo xamante ni dañu gëm ni ñoom dañ koy def ngir wute ko léegi moo tax da gis ñoo xamante ni dañu jël seeni doom joxe. ñu ni leen di jox la ñuy wax ñoom mooy lépp c'est bien calculé. xale bi nay yalwaan bu yi naa ci am lii nga am ci xale bi am ci li xamuloon exploitation. Mm-hmm. lu garaaw lool nag jaaduwul ci daara daara li ko tax a jóg mooy jàngale ak def ci nit ay jikko. Mm-hmm. njàng bu àndul ak jikko sax baaxul. Mm-hmm. ma ñëw ci maam Cheikhul Khadim bi mu jëlee ñaar ci njabootam muy sëriñ mu Moustapha Mbacke ak sëriñ lu Mbacke. di leen jox seen Dame Abdourahmane Lo xam nga lu ko wax. ñii ma jox bu ñu buuñ. bu ñu buun bu ñu saalañ te bu ñu jagal dégg nga xam nga buun mooy gëj a lekk yàpp hmm. kon taalibe yi bu ñu sous-alimenté wu dañuy lekk lekk bu baax parce que nag l'esprit sain dans un corps sain hmm. nit ki pour yaramam mën a baax ba xelum ubbeeku faaw faaw xel mi pour mu ubbeeku faaw ñu defaral ko yaram moo hmm. tax mu ne ko dañuy lekk lu baax bu ñu saalañ te bu ñu jagal ay baatu wolof yu diis la mooy yenn saa nga gis boo xam ne boobu ba day dërë dërë dër bari ay ëkk yu ci nekk. Mhm. ndax tilim mënu ko buñ ko def parce que nag alquran dafa yéeme amul benn téere ci àdduna bu ñu ne innahu la quranun karim fii kitaabin mag laa mu tax almutahhar alquran mooy téere bi nga xam ne ku laabul mënu koo yor waaw ku laabul mënu koo yor ba pare nga bëgg ne taalibe pour mu man a jàng faaw mu tilim faaw mu sonn faaw mu souffrir loolu baaxul. mun ko kon bu ñu saalañ te bu ñu jagal xam nga lan mooy saalañ ak jagal bii mooy yi bopp bu bari ay të beneen bi mooy yaram wu tilima tilima tilima ku a gis sa koor yëpp day tëju mhm. mais kooku boo ko jàngalee du xam dara kon loolu lislaam mënu ci ànd li mu sant xale bi mooy nga yar ko def ci moom am jàng mag ñi buñ daan indi yalwaan humilité lañ ci jubloon ci doomu adama bi mhm. xale la war nañ koo préparer ëllëg war na yor ay responsabilité faaw mu humble faaw mu lool rek lañ ci jublu woon dañ la jël ab formation bu ndaw la waaye wax ñu loolu nga koy def suba ba ngoon mm. léegi da ngay romb taalibe ci mbedd léegi di ko sarax man de deux cent laa la bëgg sarax waaye cinq mille laa yor yi amoo wecc mu la am naa ci mm-hmm. kon nga xam ne kii amul benn activité bu dul yóot di yelwaan loolu nag mënul ànd ak une bonne éducation loolu mënul ànd ak éducation ba tey waaye oustaz mm-hmm. li nga wax foofu laay jëlee mm-hmm. da ngay dem marché gis taalibe yi di yoot njaayu jàmbur yi pour jaayaat. Mhm. taalibe yi léegi boo leen saraxee sax lu dul alal. Mhm. dañ ko fay tegaat. Mhm. donc dafa mel ni ustaasu daal yi dañu sas. taalibe yi. loolu noo ko jàngatee. loolu de ku ko def def nga lu bon def nga lu ñaaw def nga lu lislaam gërëmul man damay wax ni man sama daara. dama joxe rek exemple ba am na daara yu gën sax nag sama daara man damay wax ni képp ku ma jox sa doom boo koy seet si bu ma tàggu soo ma joxee sa doom. sooy ñëw di seet si xale bi bul ma woo ni ma dama fay ñëw parce que nit rek nit nit ku ne nit la man nga ma ko wax ne naa sang xale bi nañ ko solal lii nañ ko def lii nga ñëw ma présenté la loo xam ne dëgg dama naan la heure boo bëggee ñëw ñëwal soo yooyu na nga fekki sa doom noonu laa ko yore su la neexee nga xam ne lii mooy li ma ko yore su la naqaree nag jëlal sa doom nga yóbbu mais munuma aw ma condition bu gën bii ma ko teg ab appalu ma ko nga war fii ñëw ñu naan nañ ko sang nañ ko puudar rek nañ ko pasteur rek nañ ko sol du ma ko def nii la mel nii la ñuy nekkee ak moom loolu fa commencé sax bari gis nga ko ci internat yi léegi nag maa ngi wax ni am na benn parenthèse bu ñuy def mooy internat yi ñu ngi bari mais il faut ñu bàyyi xel ci wàllu éducation boobu xëy na xale yaa nga fay génne di wattu alquran loolu am na solo di mën alquran mais nag loolu nga wax mu éducation daf ci am solo lool lool lool te bari na xale yoo xamante ni comme ni muy demee ci école française bi noonu lay amee xale yu génne ci daara ñu gis ñoom ay comportement ak jikko yoo xamante ni baaxul te gënul te gis nañ ni ca daara yéen lañ ko jël jële loolu nag bu xasee ba am mooy danger mu ngi am danger dëgg la Moussa Khalifa mm. internet yi dafa mel ni sama am Seydi Hadji Malick dafa am nu mu daan yare ay ceddo indi benn système boo xam ne day nafsu pour mën yar noo gisee yaru léegi bi ak yaru léegi bu sax ni ma gisee yaru léegi mooy la la Serigne rek ni nit ku nit ku amul jikko ju baax mu ni rab rabata nit ku amul jikko ju baax sama Seydi Hadji Malick ñëw yum nun wa xubbun wa rahmun maadilun wa nit ñi jikko yooyu Jibril alayhi salaatu wa Seydi waaye nag ba mu ko yóbbu bàyyi nañu ko alxuraan te référence bi nag mooy daara daara jooju nag bu fekkente ni ñu bari dañoo jël seen i doom ñi man kat sama doom du ma ko yóbbu ci daara ji wala daara bu sa Abdoulahi Gaye damay fayee ko 1000 francs par weer ma yóbbu ko boo xam ne damay fay par weer ma yóbbu ko fa te jikkoom defaru yaakaar ne kon avancement dina yéex te sa yoo xam ne jàngoro yu loolu Sëriñ Tuubaa jàngal Cheikh Maam Cheikh Ahmad Bamba daan jël euh, téere alxuraan تيم كنت كنت كنت يا كتاب الكريم انت حبيبي وخليلي وقبل كنت ندخ فنك القران قام في مبيك خمس سبع كنت يا ويا كان سوي جاوي سونو ريفيرانس موي القران رك موي موي سونو رك بونتي بونتي صاحي لي بغ لي تي كوي باخ دينا كوا القران موي سيغي ريفيرانس مصطفى باي لاي القران موي سيغي ريفيرانس واي دا فا ملني سين دار ني سين سيستم ليغا خا ديغن كوي غيني بور انترنت است كو لين خيخو لين توبابي ndax dafa melni euh wayju dañ ñoo joxla sa doom mhm. mu am juróom benn at ci daara ji. mat mm-hmm. a dugg école. ñu ñëw ne oustaz ah xale bi di dugg école. Mhm. yéen est-ce que système pour contourner loolu. Mhm. ngeen créer benn internat pour xale bi continuer seen loxo ndax ngeen mottali yaram. waaw loolu c'est important parce que xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa xam ne ilmu kulli shay'in mhm. ne nga jàng ko te xam moo gën nga réere ko. mu waxaat ci beneen xadis man ami man man taallama lugata qawmin amina min makrihim mu ne ku jàng langu ay nit da ngay mucc ci seeni pexe. kon jamono toll na foo xamante ni xam-xam mënatuñ ko tënk. mënatuñ ko am fu ñu ko dugal naan fii la yem. léegi nag nit ñi dañu am problème nit a ngi koo xamante ni dafa bëgg doomam jàng alquran. mais xam na ni su ko boolee école française am bi alquran ji dina sooxe. nit a ngi koo xamante ni bëgg na doomam jàng français mais xam na ni su ko boolee ak alxuraan bi français bi dina sooxe. léegi nag choix la. ñii dañuy choisir ba ñuy choisir be léegi nag bu loolu amee. ñun war nañu ut porte de sortie ci loolu mooy war nañu fexe ba taxawal école yoo xamante ni li xaw way jur bi di soxla yëpp da ko fay am na doon daara yoo xamante ni daara boo dee au vrai sens du mot ba nga xamante ni xale bi bu fiy génne dinañ ko préparer ci alquran ba mu man ko waaye dinañ ko jàngal programme bi nga xam ne mu ngi dox ci réew mi muy suñu langue officielle français la mu fexe ba mu man ca la mu ca war a man ak ak arab yi ak lu mar a doon ba ci anglais bi muy trilinguisme et formation professionnelle dafa war a am sax ci daara yi xale ñoo fexe ba bu ñu fay génn dañuy man alquran man arabia man français man li ñu war a man yëpp ba pare bu ñu demee ba CM2 fekk ni wattu nañu alquran wala lu mu tuuti tuuti miin nañ ko mais ba mën def seen examen su ñu defee ba am seen entrée en sixième embarras de choix le bi di am. su ko neexee mu ne li ma bëgg mooy mu suivre arabia wala français wala mu continuer cursusam def ko ci programme mu franco arabe. loolu lépp dafa war a mën a nekk ci école yi te loolu yi dafa jaadu bu ñu ko defee rek jàmm dina am ndax nag aussi dama koy wax ni. li ñu naqari ci suñu réew mi yépp mooy ñi nga xam ne ñu ngi leen di jiital ñuy sàcc alalu réew mi. c'est parce que dañ leen a jàngal te yaruñu leen yonent Yàlla Yuusuf dafa laajoon buur ba ministère de l' économie et des finances ij'alnii ala xazaa'ini l-ard inni hafiizun alim jox ma le ministère de l' économie et des finances pourquoi la koy laaj mu ne parce que critère yi ñu koy yore muy compétence et savoir mu ngi ci man jub naa ba du ma sàcc alalu réew mi mais jàng naa ba mën a gérer ministère boobu mais loolu la ñu bëgg type de sénégalais bi ñu bëgg ëllëg du bi ñu ñuy proposer ndax du ay nit ñoo xamante ni ñooy wër di taxawaalu di def yaramu neen di wax wax ñu bon ñoom ñoo ñuy proposé le type de sénégalais bi ñuy xaar bi ñuy xaar ëllëg mooy bi nga xamante ni li mu war a xam ci diineem xam na ko li mu war a xam ci li ñuy jàngale ci réew mi xam na ko ba bu ñu ko joxee poste de responsabilité dañu xam ne ku ñu yar la moo wax la foofu. dama dem Turquie gis fa lu ma yéem gis na Turquie Erdogan mii nga dégg ni mu doonee président suba noonu lañ ko mënoon a def imam ci jàkk da ngay gis ñi nga xam ne ñooy imam yi ci jàkka ji ëllëg mën nañu doon ay premier ministre mën nañ doon ay yor ministère ñooy nekk ca ministère yooyu ëllëg mën nañ leen a indi ñu nekk ci jàkka yi doon parce que préparé nañ leen ci ñaari yi loolu nag boo amul dañuy coow rek ne kon dafa mel ni xalifa euh, enseignement et éducation mhm. enseignement da ngay def xam-xam mhm. éducation koy yar. manam mhm. ay jikom euh, problème dafa melni borom xam-xam yu en vous de àndul yar duñu mëna yar loolu ci jangal ni nga xam dañu am xam-xam. té ñok yar est-ce que dina mën a le message ci xalé bi. Ah, xam-xam yar koy lépp loo gis dafa am loo koy tunga mais xam-xam yar moo koy tunga parce que da nga ni sànq éduca enseignement su ànd ak yar muy benn mais d'accord nag base dafa am base ba mooy lan man dama ni base toujours nekk du nekk ca jàngukaay ba base ba ca kër ga ca ndey ja ca way juru góor wa ca la war a démarrer mais xale mënul démarrer ci kër gi mel-melokaan woo xamante nit nii nga ci def ma lakkal naa koy bu ca jàngukaay bool naa koy ca français pour bëgg jikkoom changer du changer xale dama koy éducation de base dafa war am base ba lu ca du ca alxuraan ja du ca école ba ci kër ga muy ndey ja dafa war a yaru baayam yaru mu nekk ko muy yaru mu mën ñu war ko mën a yóbbu na mu dem yaru mu dem jàngale yaru wala mu dem continuer mottali mottali ko yaru mm-hmm. donc éducation de base boobu dafay wane ni mm-hmm. eh, ak am ci diggante wayjur ak doom mm-hmm. mu mel ne wayjur yi dafa am benn liggéey bu ñu war a def ndaat ñu yóbbu ci daara ja ndax yaakaar ci ustaasu daara ja dafay fekk nga defar sa ginnaaw ba noppi. Hmm. oustaz noo jàngatee xat loolu. ma ciy ñëw gis nga da wax ci wàllu yar te dafa am solo suñu hmm. wajur Alaaji Xalifa nga yàlla ko yàlla dolli xéew na nit daf ñu daan wax ni nit mën nga am xam-xam ñu booleel ak sa xam-xam toroxal mën ngaa am alal ñu booleel ak sa alal toroxal mën nga am juddu sax ñu booleel ak sa juddu toroxal waaye am naa yar ñu booleel ak sama yar toroxal kenn mësu ko gis kenn du du am yar koy toroxal nit boo ko boo bu yaroo rek ñëpp hmm. dañ koy bëgg. ñëpp dañ koy sopp loolu dafa am solo yar boobu nag li nga ci wax mooy dafa jar sax bàyyi xam nga ya? lu tax hmm. eh, maa la wax ni la nit dina ñëw ba yowmal ya qiyam du sama wax sax waxu yonente bi alayhi salaatu nit dina ñëw ba yowmal ya qiyam taxaw buntu àjjana ñu xool rek li lépp mu tuur ok mu war a dem àjjana. Hmm. mu dem bay dem doom yi taxaw ne yàlla yaa koy bàyyi muy dem de te doon suñu way yaruñu woon yar bu baax. tëruñu ndey ju baax. yaruñu ci environnement bu baax. lu xamaluñu suñu diine ba ñu war ko xam moom de baayam dafa defoon ci moom li baax waaye moom def ko ci ñun. kon nag am nañu responsabilité suñu ndëngte sax waaye moom it kenn ëpp ko ci responsabilité. yàlla ni ko dénkali sa doom yoo boo ko kenn mënta wax lu dul dëgg mu ne wax dégg naa ko d'accord ne ci waaw ñuy jël ci ay tiyaabaam di jox ci ay doom léegi nag bu doon góor gu yor lu mat ñetti soxna ñeent yor ñaar fukki doom wala fanweeri doom kenn ku nekk ñu compal la ci say tiyaaba jox ko say doom du ñu matal tiyaaba yow doo matal tiyaaba ñu boole yéen ñëpp wala yas bi la yonent bi ñu dugal safar garaaw loolu loolu nag kon ku leen ku yabu moytu ko léegi mm-hmm. parce que doom ku ko am xam na ngay dégg ci réew ñaan booy booy milité boo nekkee ci syndicat wala nga nekk ci politique bi benn tànk gi ci biti waaye benn tànk gi ci biir prison bi mm-hmm. waaye bi garaaw du loolu képp ko am doom mm-hmm. yëgal ni sa benn tànk mu ngi àjjana waaye sa benn tànk ngi safar soo góorgóorloo bi nekk safara fekki àjjana soo góorgóorluwul bi nekk àjjana fekki safara fekk bee ci jëm jëm safara kon lu am solo la lu war a bàyyi xel nit sonn ci ay doomam ñu baax parce que si boo leen yarul boo leen yóbboon dañuy am problème xam nga léegi éducation c'est un grand problème boo xoolee ak média beeg lépp li fi nekk ci lu man a yàq doomu nit dafay bari waaw mbedd mi mbedd bo yow yaa ngi yaa ngi yàqoo ci télévision bi di yàqoo ci mbedd mi parce que su ma jëlee sama doom yóbbu yar yow nga jël sa doom yóbbu yar keneen jël yaru mhm. xam nga fekki si ñaaw moo gën a yomb fekki lu ñaaw kon sa doom mu ngay dem ca daara ja wala mu ngay dem ca école bi nga gis ci moom comportement yoo xamante ni sadi sadi si te fenn la ko jëlee wuludul ca fa muy jànge kon li ko waral mooy nit ñëpp dañu war a yar seen doom yar yu baax ñu boole leen yóbbu bu ñu leen yóbbu nag jox leen it ku yaru mm-hmm. jàngalekat bu yaruwul du mën a yari par monsieur inna moom bu amee yar fekk xale yi def nañ ci ñoom mm-hmm. yar boo xam ne ci base bi lañ leen ko defee boo poussé rek mu tàkk day doon bëri ko bu tegu ci mbartam boo tegee sa loxo mu dem boo dégg la oustaz ñàkk njàng hmm. teewul ñu mën a yar xale yi hmm. ndax ki yàlla boole eh, suñu borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran hmm. wala kum fii rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarjullaha wa yawmal aaxirati wa zakara allaha kasira ki mu wax mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi moom la ñu war a roy te yonent yàlla muhammad jàngul kon tedd ngay jikko afi am jikko yoo xam ne bu nekk ci yow di nga mën a yor ba mën a defar askan bi mm-hmm. yaay wax léegi ci ñi nga xam ne dañoo war a jiite réew mm-hmm. kon ñooñu dañu war a am comportement boo xam ni mm-hmm. euh, war a nekk exemplaire ci population bi nga xam ni dañu war a yor kon yow wayjur wi nan la mën a jaar ba nga xam ni benn tànkam àjjana la gën a jege ke safara nan la war a jaar ak wajuram diggante ak wajur ak doom bi nga xam ne jur na ko la wajur war a def moom bala ma dëkk si loolu ma wax la yonent bi dafa wax ni moom dafa yaru لطخ غا ادبني ربي فاحسن التاديب لطخ ما يرو موي موما يرو موي سامو بور شيخ الحاج مالك من كل وصف حميد حاد افا على التفضيل رجاء البرايا يوم مستحب وكان اشجع اسقى الناس احسنهم خلقا وخلقا وخير الحزب نرا يونتي بي ليب موكو اوبلي نيت moo fi gën a yaw moo fi gën a baax moo fi gën a correct moo fi gën a moo fi gën a moo fi gën a mën bay kon li nekk ci moom yépp moom sallallahu alayhi wa nee na yàllaa ko ci def moo tax mu gën a yaw ku moom moom yonent bi alayhi nag laaj ma ci àq yi dox ci diggante wuy jur ak doom dafa bari ci hmm. lislaam nag dafa am ay àq bokk na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na àq bi njëkk bi wuy jur yoreel doomam mooy utal ko yaay ju baax ma def na benn entre guillemets foofu da ngay dégg ci réew mi ku ne naan xale waaw boo bëggee am doom ju baax da nga koy utal yaay ju baax. Hmm. mais bu yaay baaxee te baay baaxul ce que doom dina baax. kon nag dërëm ak dërëm ñoo mën a am. Hmm. boo jigéen ni góor di waree bàyyi yaay bu baax pour ñu jëloon ko ay doom. Hmm. loolu la jigéen war bu baax bu muy amali doom loolu du caaxaan. du caaxaan léegi nag boo ko utalee yaay ju baax moom la maam Cheikh Al Hadj danoon wax naan liggéeyu ndey añub doom de wolof wax na ko mu rafet lool waaye alxuraan indiw ko waaye du dàqanteeg moom. Hmm. suma benn maam boo xam ne moom la ñuy wax tafsir Moubarak Gueye moo jur bàjjen Tabara Gueye mi jur Maodo si bokk ak sama baay sama maam bi jur sama baay ndax ak Khalifa Gueye moom mu jur Abdourahmane Gueye jur ko ñoom ñaar ñoo bokk ndey baay. Hmm. mun ko ah kay yàlla nee na wal baladu tayyibu yaxruju nabatuhu bi idni rabbi hmm. waaye walladi xabusa laa yaxruju illaa nakira suuf su nangu loo ca def mu baax boo ko boo ca jiwee day baax. waaye nee na suuf su xësee ba yàqu joola lëmbal rek lay génne mooy xale yooyu nga xam ne ndeysaan seen ndey baaxul seen baay baaxul per bu xaar la ñuy doon mbooloo mu ñu dem fu ñu jaar tàccu leen ñu fekk ci xam nga loolu doy dina kon ndey ju baax baay bu baax xale bi bu ganee àdduna nga utal ko tur bu baax tur dafay feeñ ci image yu doomu adama mm. tur du caaxaan te ñun dañ koy caaxaane mm. waaw loolu nag aussi damay leeral ni suñu tur yi ñu am ci suñu réew dara nekku ci mm. am nañ ci tur yoo xam ni bokkaale yàlla newu ci dara newu ci xam nga ñun ustaas yi yenn yi dañu amoon tendance suñu doom duñ ko tuddee yenn tur yi waaw da ngay am sa benn sœur mu tudd Penda ci misaal rek. waaw Penda amul amul ci l'islam est-ce que Omar moo jiitu l'islam est-ce que Omar Omar nekk na fi te l'islam new fi عثمان نون علي نون طلحة بن عبيد الله أبو عبيد عامر بن الجراح سيني توريور نانكو أفان الإسلام دي نيو بين الإسلام نيو يلن تيب دفكو باي نيو كون نيو نيو نيو تور دارا نيو كوتش تور بو أمول بو كالي يال واي نك دي تودي أي ياك بو تو ليك مو دي دو في فانا نك أي يو كين خمول يو يلن الإسلام بقول يلن تيب نيو نيو تور نك ليتي جن نك ما عبيد أو حبيدا bu ñu sante yàlla ahmad muhammad haamid ak yooyu mm-hmm. wala ñu jaamoo ko yàlla abdullahi ak seeni kem kon muy ñaareel bi mm-hmm. ñetteel bi mooy mu tollee ci njàng nga àq la ci wayjur bi mu teg ko ci loxo yu wóor mm-hmm. baal jël sa doom rek dinaa ko teg daal moom foo xamante ni école bii école privée la boo xamante ni day def ay résultat résultat rek c'est insuffisant ci jàng da ngay xool est-ce que résultat bi mu lay defal ci wàllu njàng mu ngi koy def ci wàllu éducation xale bi su ko deful nag boo ëllëgee xale bi dina jàng ba doon boroom xam-xam waaye lu ñu ko dénk ci réew mi daf koy sàcc ndax jàngal nañ ko pexe mu xamante ni ci xam-xamam mën na cee defuk jubadi ndax yar ak dal yi ñu waroon def ko boobu yi nga def ko ci moom bu baax a baax tool topp koy nag muy góor muy jigéen nga topp leen kenn ku si nekk na ko war a yare nga yaram yeneen bi dafa daan wax naan jàngal leen seen doom yi julli bu ñuy am juróom-ñaari at hmm. nee na ngeen forcé leen ci ba leen di dóor bu ñuy am fukki at hmm. bu ñu dëgëree tuuti wa farriqu baynahum fil madaaji ak ngeen di tàqali seen tëdduwaay yi hmm. góor ña dañuy ne ci góor ña jigéen ña dañuy ne ci jigéen ña loolu dafa baax ci éducation xale da ngay benn xale bu góor ñu koy bàyyi ci ay jigéen foo ko muy foo ak ñoom waa lañ jafo maay papa ji maay bàjjen bi maay yaay ci góor ëllëg dafay doon benn benn góor jigéen ñu ma l'expression mm-hmm. fekk ni ci éducation ba la mm-hmm. kon loolu dafa jar a bàyyi xel rek ndax li naam njaabalu gillem xajul ci waañ macha allah te li duuf ci nag li xajul ci cin li dañu koo junje noonu rek laaj nag yéen yéen ngir bari nag yooyu toppee xale bi mesure mm-hmm. d'accompagnement la ba ba muy machine loolu boo ko defee nag sa jaar wàcc na su dëngatee moo boromam la waaye yow sa yoon dootu ci jërëjëf jë su dëngatee moo euh, waxtu bëriwul bu ko defee yow oustaz Khalifa rek euh, sa kàddu gu mujj Eh, nga yëkkati ko eh, sant ñu ngay sant gërëm ñu ngay sant waaye ñu xamal ñu ni eh, xale bu yaruwul du mën a yor dara yar éducation dafa baax waaye dafa laaj suivi doo yar rek sànni waaye da ngay suivre topp ba xam ki nga yar fu mu jëm. oustaz loo ciy wax loolu ak looy tëjee ak may tàggatoo lu bon. jërëjëf jërëjëf sama kàddu gu mujj mooy nit ko réew. Mhm. la mu yor du ko moom. Mhm. muy xam-xam. muy wilaaya. Mhm. muy alal. loo ci mënti yore moomu loo ko mm-hmm. du nga soo waddee rek ku farloo moo koy far mm-hmm. boo amee xam-xam mm-hmm. réew a dina tax ba di nga wax loo xamante ne nii mooy wadd gi mooy dañ dafay teg kenn do do doye dara bu dee alal di nga ko ñàkk bu dee wilaaya nga war na am ko ñàkk ndax lu ko lu tax nga ñàkk ko mooy ñàkk yaw kon ñi ngi ñaar ñi gën a yar xale Mhm. éducation bi nga base bi gën a baax su baaxee rek mhm. leneen lu ci dese bu yéggee ci école ba rek moitié la lay nekk li Oustaz Abdoulaye Gaye wax mhm. bëritoo ko ci mbalta lay nekk soo poussé da defee daal dem waaye loolu yëpp source ba lay bàyyi ko mooy ci waajur yi yàlla ñu defal déggal topp di gërëm waa wax dëgg yàlla Thiès Prestige muy nekk télé boo xam te ne télé boo am solo la ci dëkk bi ñu ngi ñaan yàlla ñaanal ko directeur général bi nga xam ne mooy borom kër gi yàlla yàlla defal ko euh, sutura defal ko ci ndam defal ko personnel bi fi nekk yëpp mu nekk télé boo xam ne dinañ ko dégg fu ne ci àdduna bi ci barkanti yàlla Muhammad yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko rafet li ñaan yow yàlla yaa xam na nga def sa jàmm yaa jàppandal dina leen jàppandal euh, loo xamante ni wax dëgg matériel bu ëpp solo ci matériel yi fu ngeen bëgg a yeggal seen téléphone ngeen yeggal ci yàlla Muhammad salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf bu ko defee euh, mm-hmm. euh, ci waxtaan yi macha allah mm-hmm. def nga li yàlla sant yonent bi wa zakir fa inna zikra mm-hmm. ñu dañoo sàggan di fàtte te tey ni nga fi mbind mu bees fàttali nga ñu lu bari oustaz sa kàddu ko mujj ak ngeen ngeen sant yàlla waaye sant ومتخ يرنتو عليه الصلاة والسلام من يالا دفنك عبدي لم يشكرني إذا لم يشكر من أجريت على يدي آه، نت دوما سانت لولول ني دافا سانت نيغا خامتيني سما خيوال تي نيوم لا كو جاري Mm-hmm. mais ñi nga xamante ñu ngi def liggéey bi te nekk ci suuf kenn leen mm-hmm. parce que ñoom bu ñu ak seen man ko les techniciens mm-hmm. dañu am complicité ak nga les émissions kon mérite bu baax ngi leen di sant waaye sant kër prestige macha allah macha allah kilifa ji Pape ak équipe bi mu fi fekk fi dëgg fi xam la ñu ngi ñaan muy prestige buy gën di jëm kaw lay doon. Mhm. waaye du wàcc mukk macha allah alalu Cees la ñu ngi koy ndàmmoo di ko tiitaroo maa ngi yëngu nag ci beneen télévision waaye yëg leen ni yëngu ba may yëngu ci beneen télévision teewul ñu xam nangul méritu parce que nag ñun nous sommes des Thiessois parfois dañu doon ay régionalistes ah, te duñ ko tey nag macha allah kontaan nañ ci kër gi ñaan yàlla mu def fi jàmm yàlla defal lay xéewal macha suñu diggante dafa yàgg lii bi nga ko bëggee a a def de raisons sant nañ la gërëm nañ la sant kër gi ñaan